Uh, allo. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. allo. allo. allo. waaw maa ngi lay dégg. waa kay allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. waay maa lay dégg. waaw ah waaw allo Omar Cissé. waaw. allo Jawa Diagne. wala du Omar Cissé waaw maa lay dégg. Omar Cissé Omar Cissé kenn jubee tuun. waaw Jawa Diagne ñaareel. Omar xanaa ba nga nekk si luuma tey. lu ma wuti lu ma wuti ci luuma waaye dée du kee doon maa wuti luuma loolu dafa gudd man la di tey la lan àllarba tey la tey la la luuma kët paate kët paate lan déedéet déedéet waaye nu tuddee euh, dëkk ba euh, kët paate la kët man lu ma wuti kët paate man dama dëkkee man dama dem luuma waaye kon tey luuma foo dam dam moom xanaa maa ngi nii sama ah, yow looy dundee waaye waxuma la loolu ñëpp yàlla la ñuy dundee dafa am wax yoo xam ah, a wax. Ah, ma ne. waaye ñëpp yàlla lay dama ne la xamal looy dundee ba ba ba waaw yàlla laay dundee. waaye déedéet yàlla laay dundee yàlla laay dundee. waaw léegi yow yaa dundee yàlla sa affaire la. kan moo dundee yàlla yow bañ commencé ci gerte ba tey xamal génnoo dëkk bi te yaa ngi lekk ceeb a la laaj looy dundee te la nga bay booba ñoragu doon looy wala fa leboon teg. adee ah, kon loolu nga ko jëlee man li may liggéey ah, li may liggéey de waaye waxuma laa kenn kenn ku ne la ngaa liggéey ay yàq ay ñàkk a dama laa laaj la ngay dundee ndax mbir fa war a yàq am waaw man cee dimbale man cee dimbale jàmm yàlla li ma yàlla boole ah, waaw man cee lekk man man man cee lekk man cee naan man cee saraxe waa déedéet loolu doyul de loolu doyul man man man li ma xam jëlu ma ko da ko takk ci saako di dugal ci ndigal ngeen ji de. waaye déedéet li ma waaye loolu loolu loolu doxul li ma bëgg mooy nga yaatal na lii mooy cekkër nit ñi mën koo jëfandikoo ndax damaa xam ne ba yàlla ji tawee ba tey génnoo te yaa ngi lekk yaa ngi naan mën ngaa waxal nit ñi boo léegi nit ñi mën ko faa jaar yoon woo loolu laa la wax. li ma nekk daal mooy. waaw la koy bañ koy yàq. la koy jaamu yàlla daal ci daal waaye dem ñëpp ci loolu lañ nekk di waaye mbir mu ne rek dafa am yoon xomar lan la. waaw xam nga fi mu toll nii. Euh, waaw. liggéey ni golo yàq ni golo man néew ma ci. ah déedéet déedéet déedéet loolu kenn kenn nekkul loolu dafa baaxul. xomar euh, ah bon yàlla. waaw allo. waaw ma ne. waaw allo. maa ngi lay dégg. waa kay yaa ma dégg waa waa xomar ndànk rek xomar. ah waaw li ma la na wax ne jaamu a wax yaa ko ci la yàlla. waaw waaw baax na garaawul ma ne yàlla fa dogal ne. waaw eh, fan yii am na li ma fa waxoon nga xam loo waxoon. li mu wax ma ne fa am ma waxoon nga xam lu ma waxoon fa waxoon ne. nit ki nga xam ne yàlla jox na la nga dem bay ba nga bay jee yàlla may la. la nga yóbboon yàlla jox la lu ëpp la nga yóbboon. waaw loo ko mën a jaayee baax na. luñ la mën a fay baax na jaayal nga ne déedéet nga ne déedéet d'accord nañ denc gerte yi léegi nag bu fekkee yow denc nañ ko fan yi nga dégg lu xew muy muy néegi wàllaa yuy lakk néegi ngoon yuy lakk yow su boobaa yow lan mooy sa xalaat yow ndax asamaan sax buy lakk asamaan ma ne asamaan sax buy lakk na nii de yow mos ngaa gis asamaan ñu ko xalal lañ xamee gën ko ñu koy yeewoo li ci des ñoo ko moom yàlla ñu ko lekk mu jeex ci jàmm ak salaam loolu mën a ci dara sa laaj ñu mën a ci dara waaye déedéet xama tee nga ba man man xaar laa ne man lu may wax ne alors ah. léegi ne wàlla wala ko dégg ko ne wàlla wala ko dégg ko waaye su ma tàmbalee waxoon nga naan ma xasamante buy lakk tamit lu ñu xam ne du tax ñu jaay kooku xam nga yooyu di wax xasamante buy lakk ci ñun ñoo ci ñun ñun li nga xam ne sanam nañ ko suñu borom def nañ ko bay nañ nawet bi wàcc na xasaka bi génn nañ ko jox nañ jox nañ ko ñu ko moom li def moom ci loxoom yàlla lañ ko bam moom mooy mooy mooy saxaar mooy sàmm loolu suñu yoon ñëw ci xasamante na lakk suñu yoon ñëw ci suñu xasamante na lakk ma ne déglu ma la déglu ma la wax waa déglu ma la wax déglu ko waaw waaw waaw dégg naa la ñun li mu bu nekk ci la mooy ñoŋal faamu ko man si ñoŋal laa nekk ndax su ma laay woo di jël dala woo kay ngeen ñoŋal fàggu la loolu moo tax ma woote la ñun amatuñ benn maa a a wax ñun amatuñ a def daal def waaye bu yàqu yàlla ñoo koy déedéet déedéet war a déglu ba ma pare man li tax ma woo la wax la fa nga ma war a déglu bala ngaa tëj jëma sàmm xam maa walut Omar yow boo waa déglu jàmm Omar xam nga ma si lu baax xam nga ma si wax ju baax xam nga yow da nga xamuma si lu bon yow nga xam si lu baax yow yow gën a bon mbonaat yow mbonaat waa waa yaa gën a waa jërëjëf xam-xam bi ma la bëgg andil mooy dama gis ne li nga jàpp na nañ denc gerte gi ma jàpp na man loolu du solution la ma gis mooy waaw donte que dafa am oto yu ñëw xam nga borom xamoo borom xamoo fu mu dëkk xamoo fu mu dëkk donte prix bu baax la laa jëndal donte ñàkk na xaalis fa laay bind sa fa koy peese bindal la këyit nga denc man moo gën a dal sama xel muy lakk man de lii laa xalaat. waaw man xam nga sama waaw waaw xam nga man sama xalaat. waaw waaw waaw xam nga. man xam nga loolu. waaw xam nga xam nga loolu la xalaat. sama xalaat laa mooy. nañ jël gerte gi ñu peese ko nat ko kum xama kum xamul heure bu amee xaalis ñoo fay ñu moo gën a wóor gerte gi daal lakk man ne lii laa gis man waaw ñun xam nañ li suñu gerte gi du lakk xam xam nga tey gerte gi nga jël ko waa jël nga waaw waaw xam nga tey nga jël gerte gi waaw déglu rek waaw déglu ma man ñun xam nañ ne li nga xam ne suñu xalaat lii du yàqu ah déedéet gerte gi kay gis nga gerte gis nga gerte goo xam ne lakk gerte ah, lu tax du saxe. gerte la ni li tax du saxe li tax du saxe li li tax du saxe xam nañ ko def nañ li tax nañ ko. def nañ ko puudar nañ ko nañ ko denc fii ak weer nañ de man ma ko dama ne nañ ko peese ñu nat ko nañ ko peese jël kayit gi denc ko moo gën a wóor. doon maxi mën na ko lekk jeexi mën na ko lekk dafa ëgg réew. waaye moo gën a. déedéet bu bu bu kenn not bu kenn leble. Ah, loolu. Eh, waaw yow xamar yow lan la yow yow mën nga xam xam bu tax buñ ko maye te bu yee ne lan nga ne laa ci bu yee sax buñ ko maye liñ ko war a joxe daal bu bu bu jeexee waa déedéet xamar ñu def waa dëgg la bu leen la tax ma da seen ko la jëriñ lan la yow sa xalaat xamoo xalaat te yow xalaatoona nag peese gerte gi nag ko moo gën bu ko safara fekkee fekk yow kayit bi nga yore denc ko photocopie nga ko dugal nga ko sa téléphone est-ce que xamoon ne loolu moo gën man sama wax jalab mu lépp lu ma laa wax xam jalab jalab mus baaxut ndax jalab mus boo yàqee ay ay ay ndef ngay nag jalab mus boo ko yàqee ne nekay ne dara baaxut ci boo ko ko waxee baaxut jalab mus li jële baaxut wax bi baaxut Eh, yo da nga bay dama bay lu mu jëlee ci bi yo da nga bay mu bay bayoo tus bayoo tous loo bay yow boo yow gëstu sax bayoo nga doon bay. waaw dama bay dara. waaye jërëjëf comme mënuma dégg yow foo nekk nii tey. maa ngi dama dama génnoon waaye dem naa ba ñëw. déet loolu mooy waxee la dama jënd naa foo demoon laa ak foo nekk kay na ma place nangam laa demoon. maa ngi maa maa ngi ci dëkk bi maa ngi nii sama kër. foo demoon. Eh, dama xëyoon dem Kaarang. lu fa kaw mbaalu yombuloon. yomb ci lan. ma ne mbaalu yombuloon lu fa waaw mbaalu yomb la. nee na dafa am sama rakk bu nekkoon Gambie mu ne bu doon dem ma demoon ko ah faa yaakaaroon ne fasu nga yóbboon maa déggoon kere nga la wax ne fasu fa feebar ma yaakaar ne moom nga yóbboon tele wallaahi kàcce waxuma fasu ba taxaw nga ne vétérinaire baa ngi ni may ma ma piqûre son fas waxoo damay entretien damay entretien laa la wax waaye feebar ma waxuma ko parce que ko waaw xamar entretien lu feebar duñ ko entretien entretien entretien mooy toog ba yàgg nga dem nga xool ba ma ne tout loolu matériel lañ koy def kenn du ko def jur gi. parce que mu nekk loolu ay sera lañ koy def wala ay welo wala ay ngoose wala ay jala wala ay machine xomar man damaa xam mbay yooyu la def entretien waaye. waaye amoo dinaa yoo xam ne ci dara ñëpp dañu def entretien boobu nga naan waa baax na jërëjëf ana ana anaañ bi taal ngeen wala tey fa ngeen a kii. déedéet fii lan ñu ñu may nga togg tey jëm am tey ah gën yow mag moo ko xëy ñëw gën yow ñaari jën jën mille cinq cent muy trois mille francs ñu lay ceeb ceeb bi jën bu xonk Omar yéen yéen a ngi kii de barkeel ko ñun jàmm la ñu mag pour ñu ko fa ñuy gerte jaar war a dund ñu ngi ne nga ne denc gerte gi ñoom ñuy dundee ñoom xam nga Omar. waa déglu déglu damaa déglu. Omar gerte gi. waa déglu nañ nañ jaay gerte gi ci prix bu am. nañ ko jaay. kenn jaay kenn jaay. même ngooñ bi ma gën a xam nga a naqari nag. ma waaj ñëw léegi bëgg na deux cent saako ngooñ waaye saako laa ko bu paase soo ko paasee yàq nga sa xaalis loolu laa ko. parce paase mille cinq cent doy na fi xam nga lan la. yow yow loo yóbboo yow ngooñ yow gerte nga jiwoon nga am bénéfice am si way jëfandiku yi ma ne ñoo la jiwoon yow. nee la ñoo la jiwoon yow. kan noonu. ñoo la jiwoon yow man man lu ma bay ma jaay man damay bay am yërmande si ñëpp man damay bay. yow am na yërmande seen yow bayoo yow daal li yow daal yow daal musuwaar Mbacke ma ñu fi doon imposé ñoo lànk ba sa ndaare ba di nga ko def. Omar Ba am na ku ñëw fii démb si la jël trois cent sur duñ ko def duñ ko jaay. ah kooku wérul waaw baax na waaw baax na kooku wérul kooku wérul. ah duñ ko jaay Omar duñ ko jaay. Omar ñiitu ba lakkale tànnakatu daal Omar wax naa la na wax wax naa la wax doo bëgg nga déglu li ma laa wax. waaw déglu rek wax nga laa wax. waaw déglu rek. waaw man li ma laa wax yow yow xamoo ko nag wax ko ñaan nga ma wax. ah loolu nga ko gisee yow. ah baax na. yow baax na ñu la ñu la waa déedéet ay waxi ko xañaan baat laa bëgg nga teg ko ci suuf xomar man xañaanu man xam-xam laa lay wax waaw loo xam-xam man laa xañaanu waaw baax na waaw gis nga ñun kenn di nga xam ne nii waaw du ngeen du koon du ngeen jox ñun or la jamaa yow loolu nga koy def gerte gi foor na gerte gi fees na. wa waa baax na loolu laa doon wa waa koy dégg da ngay da ngay teel a gerte mu jox la ay soixante sept kilos soixante huit kilos. waa baax na ba safara fees loolu ku la ci fees saako saako fekk sax ku lu ci bëri juróomi safara am na de safara am na de. safara ci ngay dund ba nga safara ngay ah, na rek